romsaar juróom ñeent li ma bëgg a wax nag ci kanamu kirist laa koy waxe dëgg la du aw fen sama xel mi xel mu sell mi leeral seddale na ma ne dëgg laay wax maanaam duma noppee am naqar wu rëy ci sama biir xol ba xaw a bëgg a tàggoo ak kirist te alku ngir ñi ma bokkal xeet mucc bànni israyil lañu te yàlla def na leen ni ay doomam dëkkaloon na ndamam ci seen biir fas ak ñoom kóllëre yi ñoom la yàlla dénk yoonu musaa ñoom la xamal ni ñu ko war a jaamoo ñoom la joxi digam maam yàlla tànnoon ci ñoom lañu bokk te ci ñoom it la kirist wàcce maanaam ci jëmmam kirist mi di yàlla tiim lépp teyloo taraanga ba faw amiin waaye néewuma waxu yàlla dafa toxu ndaxte bokk ci bànni israyil taxul nga bokk ci israyil tigi te it du ñu soqi ko ci ibrahima ñépp ay doomam dëgg lañu ndaxte yàlla dafa wax ibrahima ne ko saw askan ci isaaxa jaar maanaam soqi ko ci ibrahima taxul a nekk doomu yàlla waaye juddoo ci biir digéeb yàlla mooy taxa bokk dëgg-dëgg ci askanu ibrahima ndaxte yàlla dafa digoon ibrahima naan ci waxtu wi déwén dinaa dellusi ci yow te saarata dina am doom ju góor te du ci loolu rekk waaye noonu la it ci lu jëm ci rebeka doom yi mu jur ñoo bokk benn baay moo di sunu maam isaaxa waaye yàlla wax ko ne ba rakk ji moo yilif magam esaw fekk xale ya juddooguñu te defaguñu dara muy lu baax muy lu bon yàlla def na noonu maanaam tànn kenn ci doom yi ngir dogalam mën a taxaw te sukkandikuwul ci seeni jëf waaye ci wooteeb yàlla loolu la mbind mi wax ne bëgg naa ba bañ naa esaw kon lu ñu ci war a wax ndax yàlla atewul foofu yoon nag mukk dafa wax musaa sax ne ko dinaa yërëm ku ma neex laabiir ci ku neex dama leen di wax nag dara ajuwul ci coobareeg nit mbaa ci ñaqam waaye lépp a ngi aju ci yërmande yàlla ndax bind mi biral na li yàlla wax na ne ko def naa la buur ngir feeñal sama kàttan ci say mbir te ngir siiwal sama tur ci àddina si sépp kon nag yàlla la ko neex lay def muy yërëm nit mbaa dëgëral bon waaye xanaa dina am ku may wax ne ginnaaw kenn mënula bañ coobareeg yàlla lu tax kon muy teg nit tooñ yow nag nit ki ak koo mën a doon lu tax ngay werante ak yàlla ndax mbindeef dina laaj ki ko bind lu tax nga binde ma nii ndax tabaxkatu ndaa sañu la fab banam tabax ci ñaari ndaa benn bi ngir soxla yu am maanaa bi ci des ngir soxla yu ndaw kon nag looy wax ci lii yàlla bëggoon na wone meram xamle it dooleem ci àddina teewul dafa sax ci muñal ñi yelloo meram te taxaw ci sànku bëggoon na it xamle màggaayam mu ëpp xel ci boole ñi mu yéram ci ndamam moo tax mu tànn leen ca njaalbeen te wax ji noo ko moom nu ñu yàlla woo ci boppam ci biir yawut yi ak ci biir xeet yi ci des moom la wax ci téereb ose ne ñi nekkul woon sama xeet dinaa leen ko def ñi bokkul woon ci sama mbëggeel dinaa leen ci boole te fa ñu leen waxe woon du ngeen sama xeet des na leen fa wooye doomi yàlla boroom dund esaayi wax na ci mbirum israyel ne lu bànni israyel bare bari ni suufu géej sax lu néew rekk a ciy mucc ndaxte li borom bi dogal ci àddina dina ko gaaw a def te dina mat sëkk esaay waxoon na lu jiitu loolu ne yàlla boroom kàttan gi su bàyyul woon ci nun lu néew kon ba tey raat nanu ñi dëkki sodom ak gomoor lu nu ci war a wax nag ñi dul yawut te fonk ñu woon jub ci kanamu yàlla léegi jub nañu ci kaw ngëm waaye bànni israel mi bëggoon sàmm yoon ngir jub matalu ko ndax lan ndax dañoo sukkandiku ci seeni jëf bàyyi ngëm dañoo daanu ci doj wuy fakkatale moom la yàlla wax ci mbind mi ne dinaa samp ci siyon doj wuy fakkatale di xeer wuy daaneel nit waaye ku wéeru ci moom sa yaakaar du tas